tey dañu fi amoon benn lël euh, ordre des médecins organisé ko euh, ci taxawaayu ministère de la santé ak tam ministère euh, de la justice ak yëpp kuréel yu yëngatu ci santé lu mel ni syndicat yi yu mel ni association yi mais tamit kuréel tamit yëngu ci wàllu justice pour suñu diggante ñu waxtaan bu ngeen kay seetlu jamono yi ci ginnaaw amoon ay jafe-jafe yu amoon ci wàllu secteur santé ba mu indi woon ay jixi jaaxa yu bëri bés bi nag lël bi dafay tax euh, ñun ñi nekk ci euh, euh, millier bi waxtaan suñu biir mun na weccoo ay xalaat tamit ñu mun na gën a comprendre te parce que cappaandaw gi li am solo mooy patient bi wala ki malade bu ñëwee di faju am soin yoo xam ne dafa mucc ayib. loolu nag Bës Yu Mel daf koy daf koy euh, tax mu am parce que suñu biir nañu weccoo ay xalaat pour xool lépp li nga xam ni ñun wàll ko docteur mun nañu defar pour ñoŋal faj bi ñu def ko.